ñu teg ko entre. ñu euh, war nañ ko jënd wala war nañ ko jënd entre pouvoir ak assemblée nationale ñu kii. moi je suis un mm. ma nekkee sénégalais euh, ñu war a jënd avion dama ko war a yëg secret défense oui mais quand même avion présidentiel président de la république lay yóbbu bu il faut pas qu'on ñu compliquer affaire yi nekk Iran Irak di guerre wala wala Palestine euh, kii nu mu tudd Israël avion présidentiel quand même la ñu jënd effectivement dëkk bu war a am avion lañu foofu laa d'accord ak saa parce que dañu war a am avion dëkk bu. dëkk bu tuuti lañu mais non dëkk bu am maanaa lañu. Mhm. te dañu war a am avion. suñu suñu président dañ la war a teg ci conditions yi gën a baax parce que c'est pas le plus important du conditions yi lay teg de confort bu ñu tegee ci conditions yi nga xam ne amoo dara looy wax lan nga ñuy liggéeyal. man foofu la Sénégalais bi di xaaree président donc tey jii nii li ëpp solo mooy dans un pays comme le Sénégal bu ñu jënd avion présidentiel bu baax man Sénégalais bi dama ko war a yëg donc ni ngay interpeller opposition noonu lay am parce que su ma déggee euh, euh, li Gabriel wax. Mhm. en même temps aussi ça ne dédouane pas. Oui. le fait d'acheter l'avion. ça n'a rien à voir. kay ah, yëg nañ ko ñàkk ko yëg tey jii nii ki may njëkk laaj ay compte mooy exécutif bi ku may njëkk laaj parce que il faut bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu euh, convoqué ay mbirum secret défense ay mbirum armée ay affaires yooyu dafay dafay compliquer l'affaire bi je pense que wax yu mel ni euh, yu mel ni mooy il faut mu leer parce que quand Sénégal bu waree jënd avion bu bees il faut que ñu expliquer ñu pourquoi ñu jënd ko parce que dañuy wax ne état euh, continuité la mais en fait il faut ñu ñu dellu ginnaaw pour set lan mooy pertinence su ban prix la ñu jëndee avion wu Sarkozy bi man bëgg naa ko xam trop. 31 31 millions d' euros. 31 millions d' euros oui. 19 milliards ba c'est-à-dire que c'est-à-dire que aujourd'hui si si si si si lu lu symbolique. ah président France warul wàcc avion ñun ñu jël. ñu koy jël waaye franchement ci ci symbole. avion symbole 11 ans. voilà voilà et puis booy jënd dépense bu mel noonu ci petit réew mu toll nii. il faut pas nga nga multiplier ko sur dix ans yi ñëw multiplier ko sur vingt ans yi ñëw nga xawal pertinence su mbir mi donc mënuñu bañ a dellu ginnaaw pour xam un peu lan moo taxoon déjà ñu ñu ñu ñu jëndoon avion bi mais bu ñuy jënd avion ci prix bi warul am assemblée nationale et c'est big deal deal bu mag la mm-hmm. dañ ko war a xam il faut ñuy ñuy il faut ñuy euh, ñuy jàng di au-delà de assemblée nationale ak ñi fa teg il faut ñuy jàng mooy li may wax tout le temps lu yenu maanaa réew mu ndaw lañu yor bu avion di am Sénégal dafay jënd avion bu mag bu bees du lu ñu laax parce que bu génnee euh, avion bi bu ñëwoon fii buy daw benn fan ñëpp yëg ko xam nga du ay avion buy am ay ay ay ay arme affaire yu yu bakkee ne lay doon gars yi dugg si te léegi damay tout le temps bëgg laaj benn question dama ne bu ñu supposé comme li euh, Dieng wax Dieng Euh, dafa am sew ndeysaan benn benn waay ji tudd Dieng boo xam ne danaa ñëw suñu kër bu ñu nekkee xale euh, sama copain wu demi frère la woon da ngeen xaw a nuroo waynde waynde lañ ko doon wooyee da ngeen xaw a nuroo ah ceddo la sama mbokk waaw sa waaw ba pare nag au vrai sens du mot ah. mhm. waaw yàlla ko yàlla yërëm te yéexañu suñu Dieng ah yi nag ñu baax la voilà donc donc may may may wax que ni à supposer par exemple Macky Sall ne li ñuy xaar si moom mooy <laughs> ah ok samay deux mandats jeex na maa ngi dem bu la desee deux ans ñu jox la avion buy jar loolu su fekkee ni acte yi nga war a poser da nga koy poser est-ce que avion boobu vraiment sa bopp nga ko jëndal peut-être pas c'est une question légitime mmh. aujourd'hui lan moo tax dama koy relier sax ak troisième mandat wu président Macky Sall bi gars yi di laam-laamee di coow di di c'est important jënd avion bi bu dee daf ko jënd pour ñaari at rek peut-être que kii ñëw keneen la ko jëndal mais léegi kii ñëw keneen dégg naa Bougane Gueye Dany si euh, am na fu ma seet mu ne. bu faloo jaay faloo damay jaay avion bi loolu la wax noonu. <laughs> ah non non non non non non. Eh, eh, eh, écoute ah nit ñi dañuy jël jël transport régulier yi nit ñi dañuy jël ay engagement mm-hmm. am na ñu koy respecté am na ñu ko respecté mais moo ko wax lu ay lu ma lu ma lu ma kii donc aujourd'hui question bi ma war laaj saa waay aussi mooy ci deux ans. ah va valeur valeur avion bi munu fi wàcc de cinquante pour cent wala peut-être de dix pour cent la fi wàcc ci deux ans yi est-ce que tekki bu yéegoon day jël avion bi jaay ko loolu yëpp dafay am solo parce que bis bi ngay bi ngay waatee ba teg sa loxo ba war a tukki France ngay njëkk dem wala fenn ngay njëkk a dem ba dugg ci affaire bi sa change tout ah. Ouais, totalement ça loo xam ne daal booy dem pour man genre genre dépense yu mel ni lii ëpp solo mooy est-ce que réellement prix. bi ñu ne moom lañ avion bi di jar est-ce que loolu la jar pour man loolu c'est des questions légitimes yu ñu war a poser est-ce que du ñu ne comme ñu ne projet bi terre bi kii milliards lay jar cent milliards par exemple non dama après ñu jékki-jékki mu jar quatre cent milliards pour man question yooyu la ñu war a wax ku ku wax dëgg aussi xam que ni depuis des années effectivement avion présidentiel bi c'est pas parce que quand même fii c'est un petit village te bu avion présidentiel du Sénégal wóorul dañ ko war a wut dañu war a dañ ko war a changer jënd beneen avion beneen question bi Yérim wax parce que loolu aussi maa ngi ko doon kon sama xel mooy en réalité un avion doo ko dem ci boutique bi jënd ko est-ce que contexte bi ñu nekk léegi muy ek contexte économique bi sociale bi tension bi et tout ça mooy que lu ne cëpp rek dafay tàkk parce que gars yi ñu aussi dem ci seen logique ba mu jeex mooy parce que pour man bu ñu nee boo nee intellectuel nga boo nee boroom xam-xam nga booy seetu booy seetu da ngay da ngay seeti ba mu jeex bul bul nëbb dara loo xam ne day day yàq sa combat ak sa sa discours politique nga nekk opposition surtout wala nga nekk sax ci pouvoir mooy que tey jii nii boo nekkee jéemi ñu ne président Macky Sall jëndal nañ koy jëndal avion euh, présidentiel yow li nga war a njëkk a wax mooy que boo convoqué sa logique mooy que pour acheter un avion ñaata temps. nañ koy def nañ koy def. est-ce que tey jii ni ba ñuy jënd avion bi nekk ñu woon ci beneen situation boo xam ne on pouvait sa permettre d'acheter cet avion là c'est question légitime parce que aujourd'hui dañu nekk ci benn benn benn benn benn phase bu am solo te loolu man damay interpeller peler sénégalais yi parce que gis nga nit lu lucidité dafa baax gis nga fu mu nekk nii bu tension amee ah lu tuuti rek mën na mën na exploser mais fi ñuy différence yi ci nit yi nekk mooy que lu tension am tension am nga utiliser raison nga teg ko ak logique ak honnêteté parce que c'est important que su que nga nekk ci pouvoir ak nga nekk ci opposition sooy joxe ay argument rek nga nga xool sa diggante digganteeg yàlla nga ne pour est du ma ko bu ma ko nëbbee du sax sama discours gën a jàll parce que ci foofu la ñu nekk te ñun ñëpp on a la responsabilité tey de rester lucide c'est important parce que fii ñu toll la donc toutes ces questions là dañu nekk question yu am am solo question Gab Gabriel bi je suis désolé question bu am solo la maintenant bu bu même secret défense bu ñu nee budget lii la est-ce que yi député yi man du ma député am na ñu possibilité de creuser d'aller plus loin parce que aussi est-ce que bi ñuy bi ñuy def budget yooyu spécifier nañu on achète un avion présidentiel pour président Macky pour cinquante milliards wala soixante milliards wala cent milliards est-ce que loolu aussi buñ ko tegoon ci kaw table bi d'une façon claire opposition bi du am assez d'éléments pour dire que c'était pas opportun loolu aussi c'est une question légitime parce que boo laqatoo ci ci secret de défense bi rek après tegal leen benn avion bu bakkane gars yi aussi ils vont se dire que peut-être amuñu woon possibilité xam li nekk si biir dëggantaan loolu moom mooy convoqué même su fekkee ni euh, armée nga am na ci yenn parti yoo xam ne population bi dafa war a xam. Mm. parce que sinon c'est très dangereux quoi bu ñuy wax réew mu ndaw mu mel ni Sénégal di jënd avion population daf ko rey. alors précision yi nga wax dafa am solo ba tax précision d'un ancien député ni ma wax